di la Touba. jóg lay fëgg mbégte mi xol lay tëgg ndem réew mi Bàmba la bëgg kon ku ci sonn sëñ bi fay dëgg. tubaar rek yi dëgg ku ne sañ si li nga gën bëgg dem rek la bëgg kanaan ñu ma samoo ñu fay dëgg defar saag bi yére yi lem. seen café Jalibatu Serigne Ibrahima Touré di lis ak seetkat bu mag bu nekk ci Kër Massar Affaires de grands, vente d'habillement, DSS, exploitation de carrière, location de voitures, terrassement, boutique Hewell, Jane et frères, vente. Tout article de vaisselle à Kermassar, Nyolendimai, série boutique Olay Ilatuba. Zik Buzz Salam alaikum. Tonton la ñoo ziar. Ah, soxna Diar, mbaa ngi ci jàmm. ñoo ngi sant bu wér. yaa ngi waaj magal. bu baax sax. yaa baax turandoo. jaajëf waay. ndeysaan. yow jur ku baax ajawul doon buur da mel mbala teeñ guddee lëndëm waaye bu ne fang rek jant feeñ amoon ka sàkkane kawoon démb rek kay tey waaye nangoo jëfe ndigalu kañ la dénk da fay tey ki may bëgg a way ku lu soxna war na koo xam daa tarbu yi kan ko jox moo ko may tey li mu am mooy borom màggalu poroxaan bi woy juru maam xaadim ak a baax koo koy soxna jaaratullaahi soo bëggee baax soo bëggee baax soo bëggee baax baloo jur mu baax da ngay roy ci maam jaar bu soo mu baax mi soo bëggee baax roy ci maami Sëriñ Fallilu soo bëggee baax roy ci maami Sëriñ Saalilu soo bëggee baax baloo jur mu baax da ngay roy ci maam jaar bu soo mu baax mi keroog bañ koy yàpp pour mu ñëw kër ma mor ante sali mag ñang koy ñaax ni ñuy waajalee jigéen buy sëyi ma ngay teewlu te xam ne kàddu yi abadan lu muy nas la ma nga téeb kaamil tiji yem ci aaya bobo war na fas wa ma nga naan bu yoneen doon ñëwaat ginaaw rasul comme ma am ab yoneen waaye jur ku baax weesuwul ba mu ñëwee fekk na fa waajuru kilifa nga di soxna anta jëflanteeg moom teraanga du ko sant mu ko mu indi nganta bu waan dara ji ñëppay bëgg ngir fonk njël la dana tey lay takkaayam ngir soow mu mu jox sëñ ba lu tan bi sore sore foog mu dem di kaat indi ndox mi sukk ndongo yi naan mu rooti waat bu dajawaan ak kilifaam ga day àgg suuf ba mu romb dox lu sori mu jug soog a xuus buy liggéey ma ngay sikkar bu ca noppee ma ngay kabar mbaa nafar mës la bar jikkoom ya la buur sellal soo bëggee baax soo bëggee baax soo bëggee baax baloo jur mu baax da ngay roy ci maam jaar bu soo mu baax mi soo bëggee baax roy ci maam yi sëriñ Falliloo soo bëggee baax roy ci maam soo bëggee baax baloo jur mu baax da ngay roy ci maam jaar bu soo mu baax mi gànjar taxul mu am bayre li bi door jéeri moom xërga daan sóore kenn ne suru ma ci njëlli jaaraama mam soxna jaara borom poroxaan ay jikkoom yëpp a tedd Mister Furxaan mooy maami Cheikh Bachir ma dàq sax sultaan moo rafet xam-xam ne Seydil Bustaan bismillah ma jëlaat xalima soxna jaara laay taggaat delsi na di ko yeesal borom proxaan lay woyaat du ma tay ci di bàkk sama xalima yaa ko moom yaa di comme sa doom wér na raayu diina ji yaa ko moom martabaam du lu nëbbu moo di jaara moom rabu maami soxna mbenn gaabu yàlla nu mooy maami soxna muxsina di maami soxna maymuna soppe nga fa zilmina moo tax nga amee xéewal jërëjëfee borom poroxaan jëfe ne ndiggal nit jëfe mu koy seede pay ma ñëw di ko dëggal soo bëggee baax soo bëggee baax ba bëggee baax baloo jur mu baax da ngay roy ci maam jaar bu soo mu baax mi soo bëggee baax roy ci maami sëriñ soo bëggee baax roy ci maami sëriñ Saliou soo bëggee baax ba loo jur mu baax da ngay roy ci maam jaara bu soo mu baax mi ey eh, Amadou Yàlla xool doxal ma ko foofu kafe jaali baatu bu mag bi ak ñaari junni def naa ko addiya jaajëf akasa un café Jalibatu Serigne Ibrahima Touré di Rare avec cette carte bu bon Massar affaire de grand vente d'habillement DSS exploitation de carrière, location de voitures, terrassement, boutique Hewell, Jeng et frère, vente tout article de vaisselle à Kermassar. Nyolen Donmay, c'est une série Boutique Ila